département de Kaolack jërëjëf la région de Kaolack jërëjëf la jeunesse et way bi ngeen way léegi jërëjëf ci mais jërëjëf da ngeen ko way sama xel dem ci mon frère Ousmane Sonko bi ko wayee bi ngeen ko suma yaram dafa daw bi ngeen ko wayee suma xel ak suma xalaat yëpp dafa nekk ci mon frère Ousmane Sonko ñu koy ñaanal ñu koy ñu koy ñaanal ma ne ma ne ñoo ngi koy ñaanal foofu mu nekk yàlla génne ko fa ci jàmm ñu ngi koy ñaanal yéen bii ñu teg ci kawam mu di tolof tolof di injustice yal na ko suñu borom teggi ci lu gaaw ma bëgg une promesse Ousmane je lui dis du courage je lui dis gaynde et je suis certain qu'il est en train de faire face et il continuera à faire face et ensemble nous allons déboulonner ce régime dictatorial de Bour Saloum je veux nommer waa Benno Bokk Yaakaar nous allons les déboulonner dinañu leen fi génne dinañu leen jëlee ci mi dinañu ci bopp parce que nag injustice bi dafa doy je veux en profiter il faut ngeen déglu ñu yóbbu parce que man Bougane Gueye duma politicien wax ji may wax ak yéen faw mu doon njariñ ci yéen donc da di déglu may continuer ci li ma doon wax mon frère Ousmane Sonko je sais que aujourd'hui Macky Sall benn objectif la am mooy éliminer ko moom Ousmane Sonko du bokk ci élection yi alors loolu à travers le front

suma yaram dafa daw bi ma duggee ci barab bii fii ci Kaolack jàkkaarloog yéen la jeunesse yéen waa Kaolack bu ñuy wax gerte yéen waa Kaolack a tax bu ñu waxee le bassin arachidier yéen waa Kaolack a tax mais yéen waa Kaolack nguuru Benno Bokk Yaakaar yëpp na leen nguuru Benno fullaalu leen nguuru bennoo tegu leen fenn moo tax bi ngeen di toog boobaak léegi di xaar seen njëgu gerte ñu jël dërëm yokk ko ci naan yokkal nañu leen dërëm ci njëg li Macky Sall ne vous respecte pas le Benno Bokk Yaakaar ne respecte pas les Sénégalais que vous êtes alors mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam moo tax tous les responsables de Gëm sa bopp comme un seul ñu nekk benn jóg pour ànd ak ñun incha allah conquérir le pouvoir le 25 février 2024 incha allah moo tax j'en profite pour remercier tous les responsables de Gëm Sa Bopp mais également tous ces mouvements ces personnalités publiques qui ak ñun ci xeex bi maa ngi leen di sant bu baax mon ami et frère Sidi Mbergane ak ñi mu àndal ñëpp ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko professeur Ibrahima Gueye ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ADS Moustapha Ndaw ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko man Bougane suma gëm-gëm man Bougane suma xalaat mooy ne li war a dundal Sénégal le poumon économique du Sénégal ci Kaolack gii la war a nekk li war soqali Sénégal ci wàll koom-koom ci kaw Kaolack gii la war a nekk bu dul dara position géographique bu Kaolack war na mun a permettre tey jii set jeunesse yéen ñii taxaw ngeen am yaakaar ci seen ëllëg damay dégg ñuy wax ne jeunesse bi dañuy jël gaal gi ma ne leen ñiy jël gaal gi soxlawuñu ku leen yedd ku leen yërëm lañu soxla cette jeunesse déterminée cet jeunesse engagée bi nekk nii sama kanam dara taxu leen jóg lu may taral seeni waajur dara taxu leen jóg lu may bokk ci ñi war faj bu mu gàcce alors ku leen juróon yërëm leen comme disait l'autre waaye bu boo ngeen xam ne man Bougane ku nekk xam ne ne suma xel suma xalaat ci ay solution rek la nekk lu ma mën a def pour fexe ba seen dund doon dund bu gën loolu dong ci lay dox wutuma lu rafet wutu nu ñu koy rafetale li ma intéressé mooy yéen jeunesse bu Sénégal seen yaakaar dellusi si te yaakaar boobu yaakaar boobu incha allahu rabbi dinaa ko def te bu ma leen ko waxee ngeen war ko gëm su ma yéene mooy kenn ku nekk ci yéen ci jeunes yi ma jàkkaarlool kenn ku nekk ci yéen ci borom kër yi ma jàkkaarloo ñu àndandoo am beneen Sénégal ñu àndandoo am Sénégal boo xam ne dañuy wax ne dund gu cher gi dafa doy dañuy àndandoo ne ñàkk yoon injustice ci réew mi dafa doy danañu àndandoo xeex ba ñàkk paju gi ci réew mi ñu dakkal ko courant bi c'est clair cher na waaye ni mu chéré fépp ci Sénégal moo tax boroom kër yi tey jii jaaxle nañu jaaxle woowu dara du ko lijjanti jaaxle woowu dara du ko gindi ci seen bopp lu may ñii fi nekk yore nguur gi depuis douze ans mënuñu xamuñu mantale nañu mën nañoo sos soxor nañu iñaan nañu iñeeciti nañu ma leen di xamal ne gerte gi ku ne gis na ni ñu déterminer prix bi baykat yi il faut ñu fulalle mënuloo bay mbay def ci ñaar ba ñetti weer toog di xaar ñu nekk ci seen bureau takk seen cravate ne ñoo lay jox prix prix ba ñu lay jox xool na ñoo xool xamuñu nu ñuy def ñu ne dañ ciy yokk dërëm cinq francs wax leen ma cinq francs lu mu mën a jënd wax leen ma cinq francs lu mu mën ci jamono jii